dikk ak yéen ci seen rubrique kumpa gi di ko door rek xibaar bu métti métti ndaxte ñi nga xam ni ñooy garde corps yu Ousmane yi ab accident moo leen dab niki tey ci altine ji ginnaaw bi nga xamante ni ji bàyyeekoo nañ foofa ca Casamance ngir ñëw utali si dakaar ci bi ñu tolloo Kër Ayib ci digganteem ak euh, dëkk bi ñuy wax Nioro ci ñetti kilomètre la seen oto bi nga xam ni moo leen yeboon daal di def ay tonneau maanaam këpp daal di wëlbatiku wëlbatikuwaat ba tax na rek ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci euh, oto boobu le ay garde ñaar jot nañ cee ñàkk seen nag mi ngi bëgg a taq suuf ndaxte kii di Ousmane Sonko ginnaaw li nga xam ni mooy jafe-jafe yi mu mu doon dajeel foofu ca Ziguinchor ni ki démb tey jii lenn ci ay garde corps am ñàkk nañ seen bakken ci loo xamante ni ji doy na waar ndaxte kii di Ousmane Sonko ba muy ñibbisi moom mu nga jël avion daal di dal si fii ci Ndakaaru ñi nga xam ne nag ñooy ar kaaraangeem doon ñibbisi jaar yoon suuf yi far ñàkk seen i bakkan ci accident bi nga xam ni am nañ ko ci yoonu diggante fii nga xam ni mooy Kër Ayib ak Nioro lu ci mën di am rek ñuy laaj ndax Ousmane Sonko cat da koy bëgg a topp wala déet li ci kanam raw li gët dinañ leen toppal li nga xam ne rek mooy information yooyu le ngir gën leen ci indil ay leeral.